auzu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi irrahman irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di wax ni ubbi waat nañ benn xët fan ñu ngi ak yéen ci moyen de transport yi ginnaaw buñu jeexalee animaux yi jeexal rêve yi nga xam dafa aj ci pratique culturelle yi ma am li aj ci jaamu yàlla jeexal gént yi nga xam dafa dellu ci euh, les éléments de la nature mooy nature bi quand euh, dugg ci ci lépp dugg tey dañu ñëw ak yéen ci avion ñu boole avion ak aéroport avion ak aéroport ci gént li may njëkkee mooy dama lay indil symbolu avion ci gént nan la danaa nekk ci biir avion bi wala nekk ci biir aéroport bi maanaam symbole gént gis avion ci gént symbole yii la boroom kër ci koo am mbaa soxna ci koo am wala boobu atteindre sa objectif ci say aajo ci sa projet wala boog aajo bu faju amoon nga soxla doon ko topp doon gént nekk ci avion ba gis avion dina firi aajo bu sotti da nga gént nekk ci avion ak nit koy ngorowal moo xam ko góor moo xam ko jigéen day firi sëy ci sa diggante moom ci charte ngeen bokk dend ci ban su fekkee dafa nekk ci biir avion bi nga nekk ci waaye dendu leen boobu amul rapport ak sëy bi day firi aajo bu faj ci yow gént avion bu daanu bi avion bi daanu fekk yaa ngi ci biir avion bi baaxul day firi jafe-jafe xat-xat yu tar lool ci sa dund wala musiba wala ñàkk sotti say aajo aajo yi nga am du sotti échec wala sa objectif nga ñàkk ko atteindre comme ni ko avion bu daanu kon mazmu manil raaya maanaam gënum gënum voilà mu ngoog da nga gént góor nga gént nekk ci avion walla nga gént gis avion fekk nga amoon ay bor yu la sonal day fii fay say bor jigéen bu nekk ci néegu sëy gént gis avion rawatina nekk ci biir dana firi yoonu tukki ci avion ci jigéen ju ëmb gént di ci tukki baaxul day firi ay stress ay njàqare ay souci ci ci ëmb kooku baaxul ci moom euh, da génn tukki ci avion ba dem ci dëkk boo xam ne xamoo ban dëkk nga nekk voyagé nga ci avion bi tukki nga ñëw nga ci benn dëkk waaye dëkk bi xamoo fii ma nekk nii ban dëkk la baaxul ci gént day firi ay coono xat-xat ci sa dund benn wala am aajo aajo boobu mën naa bañ a sotti bu fekkee ne danga nga gént jóge ci dëkk dem ci dëkk xam nga ne man jóge naa Sénégal wala jóge naa dëkk sàngam voyagé dem ci beneen dëkk wala jóge naa réew mi ma nekk ñibbi Sénégal ci gént lu baax la day fii euh, jóge ci situation bi nga nekk dem ci beneen situation bu gën a baax bi nga nekk avancement yokkute réussite say mbir li bon mooy dem ci dëkk boo xamul danga gént di dawal avion lu baax la ci gént lan lay fii dana fii di nga nekk nit ku am personnalité dana fii di ajo yu faju dana fii di atteindre sa objectif ci say biir da gént yor passeport gis passeport wala nga gént yor visa mbaa nga gis visa jigéen lu baax la lan lay fi di day fii di bu la fekkoon ci ab problème day firi problème ba dafay jeex wala nga amoon jafe-jafe boo xam ne pour nga am solution ci mbir mi dafa jafe nga gént gis visa day firi mbir ma da nga ci am solution jafe-jafe bi euh, maanaam jógee ci situation jafe-jafe dem ci solution ci gént gis avion buy naaw ci jaww ci lu baax na ci gént dana firi place liggéeyukaay ci ku ko amul ku ci nekk day firi yokkute ci sa liggéey. dana firi alal dana firi xaalis wërsëg dana firi yëkkatiku ci say mbir ci situation kon lu baax la da nga nag gis aéroport nekk ci aéroport moo xam da nga ñëw voyage ñëw wàcc wala wala laa ko lixal yow daal ci biir gént gi yaa ci biir aéroport ci gént yi gën a baax la bokk te baax loolu ci jigéen dana firi changement ci sa situation dem ci beneen situation dem ci jóge ci situation dem ci beneen situation bu gën a baax. ci jigéen ju nekk ci néegu sëy léeg-léeg firi ëmb ci yow ci jigéen ju nekk ci néegu sëy dina firi amee ay responsabilité ci sa dund lu baax da nga gént yor ay nekk ci aéroport yor say bagage yaa ngi yor sa pousse-pousse yaa ngi gàddu say bagage et situation ci jógee fi nga nekk dem mën baax da gént nekk ci biir avion avion bi di di décoller wala nga gént avion bi di atterrir day firi aajo yu faju ci yow day firi atteindre subjectif ci seen biir lu baax la euh, góor nga yaa ngi ci abio nga gént avion bi di wala ku ci biir atterrir bi nag mu mu am jafe-jafe day firi jafe-jafe xat-xat yu ñëw ci yow bu dee nag da nga génn nekk ci abio muy atterrir ci góor dana firi jafe-jafe xat-xat yu jeex ci su la fekkee bu dee laa fekk ci ay bor day firi bor yooyu fay jigéen nga amul jëkkër gént nekk ci avion buy atterrir wala buy décoller bokk na ci gént yi gën a baax ci jigéen bu amul jëkkër dañu wax ne goro bu gaaw sëy bu gaaw ci dela bu gàtt voilà jigéen ji ëmb gént avion wala nekk ci avion gis avion buy atterrir moo xam nga nekk ci waaye yow gis nga ko wala nga gis ko muy jóg day firi am doom bu yomb lool waaye day firi wér ci li nga ëmb ak après ëmb gént gis avion bi nii rek nekk aéroport bi rek nekkoo ci waa yow par exemple romb nga xam ne man maa ngi ci biir aéroport bi def samay activité voyage yow yoraal yaa ngi ci biir aéroport bu baax bu baax fi nga nekk boo ko amul day firi place baax ci gént ci biir aéroport yaa ngi ci biir aéroport mais da fi réer wala sax nekk ci aéroport boo xam ne yow xamoo xamu ban dëkk nga jëm day firi yow sa jëm bopp nga nekk nit koo xam ne da ngay jël ay décision di jël ay xaraaraat yoo xam ni chaque jour euh, jafe-jafe lay jur wala problème lay maanaam décision yu gën a koy faral di jël benn wala nga nekk nit koo xam ne amoo amoo capacité wu gérer sa entourage wala sa ay nit wala ñu ngay jëflante bu dee ñoo yilif la surtout na nga nekk nit ko amul capacité pour mën gérer nit ñi gën da nga gént nekk ci aéroport balaa may jeexal ñu ngi leen wax ñi am ay gént jaar leen ci yoon bi da tàppe sa gént gi ñaari ñu indi la ko bu dee da nga bëgg a firul par téléphone dafa am fay 2000 ngay fay ñu soxla li saxaar aussi mën ngeen jokkoo ñu da gént nekk ci aéroport di xaar gan lu baax la ci gént torop bañ ne dina firi aajo bu faj dana firi atteindre sa objectif dana firi mbir yu sotti waaye ginnaaw coono ak maanaam danga def benn coono pour say aajo faju wala pour say mbir sotti wala ay jafe-jafe dana am ginnaaw jafe-jafe yi say mbir dina sotti ci lu gën a gaaw ci lu neex lool jàmm ak xéewal fekk la ci mais daal mbir moo newoon am ci ay coono yu bari di ci sonn ci sonn mbir mi sotti nga jékki-jékki gént nekk ci avion aéroport di xaar gan xamal ni mbir mi coono yaa ngi bëgg a jeex mbir maa ngi ala kulli xaal avion ak aéroport ñu ngi noonu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partage asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu